mbokk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 say mbir ba mu leer nañ di nekk foo ak moom ci téléphone bi rek sa aajo fa jërë ngeen jëf mbokk Wassare Lamb Wassare TV ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax euh, di leen jox seen wàccuwaay di leen jaar bu baax a baax di leen wax euh, ngeen fàtte bu leen fàtte di abonné bu leen fàtte di abonné ci Wassare làmb tey nag ñoo ngi fii seet si koo xamante ni nii promoteur la koo xamante ni nii dafa am loo xamante ni da koo def ci làmb euh, doon xale nag dugg ci boobaak léegi am combat yu neex yoo xamante ne na koo taxawal waaye mbas mi ñëw na euh, boobaak léegi kenn déggu ko kenn déggul ñi nga xamante ni ñoom la engagé woon tey nag ñu bëgg waxtaan ak moom ci loolu bëgg waxtaan ak moom fi nga xamante ni fi la làmb toll avant dañuy jaal ki xamante ni mooy suñu papa Boy Bambara di ko wax ne euh, acteur la ci làmb koo xamante ni nii euh, monument la ci làmb euh, feebar na feebar boo xamante ne nag jotoon na yàgg waaye jaam ak yàlla ak dogalam xëy na lii mooy li nga xamante ni mooy li gën ñoo ngi jaale mbokku làmb yëpp ak lu làmb képp koo xamante ni dafa yëngu ci làmb ku bokk ci làmb ñoo ngi la koy jaale di ko bàyyi mu nuyoo ñu yaatal waxtaan wi baaba nuyu naa la. Ousseyn maa lay fay. waaw maa ngi sant yàlla julli si yàlla bu tedd bi xam sant suma bu baax. ñaan suma papa fee mu tëdd suuf sedd si kawam xam nga sama copain yi waaw jaala tamit famille bi kii mu sa gaa suñu papa ji loolu baax ma ñaan yàlla suuf sedd si kawam yàlla xaaral ko àjjana si bàkka xoor waaw nuyu ñëpp daal. Euh, Baba tey ñu seet si woon la ñi nga xamante ni dañuy seetaan Wassare Lamb ñu ñu bëgg xam kan mooy Baba Diaw avant promoteur la sax mais avant ba avant mu nekk promoteur kan mooy Baba Diaw. waaw Baba an gaa benn ndaw la. dëkk maintenant juddoo Medina xam nga xam nga mais jaw bi sax moo gën a siiw. jaw bi waaw mais man laa sant. ok mais sinon la jaw bi moo gën a siiw xam nga waaw. dugal ci làmb parce que jékki-jékki jékki-jékki nañ gis baaba Diaw ñëw stade tëgg combat ñu jékki-jékki gis meuble yum yum kii ñëpp xam ne baaba ci meuble lay dox mais kan mooy baaba jaw lan moo a dugal ci làmb. waaw ah, làmb moom sooy xool daanaka comme ñun maintenant lañ dëkk. tefes bi jega nañu bi ñu gën a nekk booy dañu dem foofu di bëre sa souvent gis suñu papa booy kay organiser ay mbabat xam nga ñu ñëw di seetaan xam nga biir si dem ba duggu ñu yàlla def tamit doomam xam nga waa ma jël ko encadré ko xam nga dem na ba biir si gën ma dugg mais teewu nag dama doon liggéey suba ngoon dem na xam nga ba yàlla suturaal ma nag moom envie dugg si làmb bon moment nga sentir ne euh, war a dugg làmb tëgg nga mbapat. tëgg naa mbapat ba ay dumbul ay mojjaax ay ngañ jon wuli dë ñoom jéen ñoom rawaan euh, ba ba am na mbapat fii sax mbapat dama fees dell man dama xam fee de dëgg naa parcelle indose dëgg naa géejawaay dellu suñu waa si maintenant waaw man dama xam fee de si ba jamono moom alkama maa ngi koy nuyu gaa suñu bu baax la waaw sama jamono te ay nga waaw da nga am seetaan ba ay mbapat waaw bu baax léegi moment bi nga tëgg mbapat gannaaw def nga loolu lépp ci carrière ban moment nga sentir ne man mi kat war naa mën a dem dugg arène su ma juumul combat wu jën bu mujj la. combat jën. bu mujj laa mujjee seetaan dem gàlle xam nga mais waaye comme comme yàlla suturaal na ma maa ngi liggéey am naa moyen xam nga naa dugg si làmb te di yàq sama liggéey dara pour jàppale sama jeunesse. waaw bis boobu ma gën a xalaat nag si laa dugg si làmb mu siy dugg maam gàlle Abdoulaye ñu toog waxtaan. moom da mu nekk xam nga ku baax gunge ma si mais avant boobu am na idaale. idaale ñu ngi daal ñu comme lu olof naan nag ñaaw kuy mun ñu bokk xam nga ñaaw nag mu ñu bokk mal ko quoi. aba sa bàyyi bàyyi ko moom kon. ànd bi nekk ngeen doon àndee ngeen doon ànd di di di booloo di tëgg wala. waaw mais am loo xam ne xam nga comme duñ ko wax si si média dama nañ ànd di liggéey ab man ma si biir ma bàyyi man ma jël sama yoonu bopp quoi. ñoo koy nuyu bu baax a baax Idaly Gningue moom tamit promoteur boo xamante ni day jàppale xale yi euh, tout récemment dégg naa fi kalaafa bi mu tëgg boo ci xale yoo xamante ni xam naa ba saison bi tijji woon moom ba loolu daw njàndeem lay nekk. Euh, moment bi nga duggee ci làmb sa premiere combat arène euh, kan la woon. sama yoonu bopp quoi. Jackson Pam Doy. làmb ju metti ja. Euh, làmb ji nekkoon doomu daanu ñuy félicité ki nga xamante ni nii mooy Jackson euh, bi nga ci jugee nga gis stade bi ni mu meloon ambiance bi combat yi neex bi nga ci ñu jugee ba ñibbi lan nga lan nga njëkk xalaat. non am mbégte ak kontaan avant xam nga comme ni maintenant bi ñu déggoon tey xool tey suñu ay magum ñoom ñoom organiser làmb ñu dem dem ba loolu dee fi comme man may doomu maintenant jóg jël relève boobu. kon loolu lool loolu dama si am bu bu wér xam comme lu ma la waxoon Abdoulaye su mu nee combat yi laa bëgg sax moom moo may dalal ma non non jël li ndaw yi parce que. Mbadou da cee jógee rek ne xaama song gars yi mag yi. ak Cheikhou Khadim mais la saa yu ma waxee mi ma non non kii parce que am te man gëm naa ni fi suñu papa ñoom Gasson egg ak ñoom Lig xam ak ñoom Aziz ñoom Pape Fall ñoom Dieye man gëm naa ni dañuy yegg foofu soo suñu boobu ndax àdduna moom bës kenn ndax ngëm-ngëm la te man am naa ngëm-ngëm boobu. nga jógee ca euh, ne xaa mu ñoo taxawal soq gàmmu gay waaw ma jógee foofu ne xaa mu gàmmu gay avant sooku gàmmu gay sax bëggoon na ay modu Anta ay Moussa baaba loolu sooy na gis nañ promoteur yu ko fi def dañ ko fee def rek boobu la leen di ji. waaw xam nga ñëpp yemuñu man lu mu mënul am naa fulay toog ne mënu ma ko. ba si saa kees rëgg sax jotoon naa si nekk mais après laat moo ma xaaral man lu mu mënoon dafa am am amuma kees bi damay tax ne mënu ma ko te mën naa lépp loolu mais su si dëkk dangay xool ni dëkk bi doxee ànd ak moom tawal man du ma ni koo xam ne damay ibbeeku woo di ngan ngan nii laa mel mais ñu ma jege te xam ma ñoom xam nañ comme lu ma saa may dalal ndax tamit soo leen si dëkk foog am kilifa kon donc moom suma kilifa la comme ni olof naan nit doo ko jëlee du ko fàq san saa yu ma taxaw ma taxaw mais yàlla xam na ni sama mbër sa jéggi na yenn combat yi te tegu ma ko fenn lépp dama ni ragal lépp yàlla la mu si combat wu soq gàmmu gay ndogal dal sama kaw ma ñëwaat jëlaat double moteur coince teg ko si te avant may teg double moteur coince sax am na benn kalaaf bu ñu bëggoon foo ci tollu parce que laal la kiiwee te incha allah su làmb ji ibbi woon nii nii ba taxaw nii damay taxaw combat bu mag ak sëriñ Tuubaa man sama àdduna man lu ma gëm mooy ragal yab yàlla la. Ousseyn dugg na si am na jafe-jafe non man man nga ma si dugg non man man gëmuma lool. waa Gaxwane ba ñu may business sax xam ne lool te man gëm naa ne dinaa egg fu ñoom Gaston egg ak ñoom Ligue ñoom Pape Abdou Fall mais mënu ma fu def ñoom luñ luñ fi deful te fu ñu egg ñaan naa yàlla egg fa te gëm naa ko. en tant promoteur balaa may ñëw ci sa combat euh, ni làmb di doxee nii naka nga ko gisee. làmb tool ah làmb làmb moom bëgg na coow mais toujours ak léppay nice waaw lam moo baaxee nii quoi waaw dina baax wala du baax dina baax wala du baax mais toujours day baax. Euh, boobu avant mbas mi di ñëw euh, samedi la bébé Diène doon bëre ak Fourrière dimanche nga woon tëgg ki nga xamante ne mooy Sokh gàmmu Gueye euh, ñu ñëw ba ci samedi dëkk bi daanu ñu ne làmb ji aj nañ ko. biñ ne làmb ji aj nañ ko naka naka bi nga ko déggee nu mu la def ak euh, ñi nga xamante ni njootoon nga leen jox avance ñu préparé ba samedi yow jafe naa jot nga préparé toog euh, ndugg say ndugg pour waaj euh, dimanche ba bi nga ko déggee nu mu la def. waaw moom moo déggee avant tout dama sant yàlla bu baax xam nga lay nattu du teg si kawam mu nangu ko xam na méttiwul mais nañ sant yàlla bu baax mais xam day financé woon ba xam suba la. nat natu dal sa kaw su ma ne méttiwul tamit dama wax lu ma neex métti na méttiwul mais jaam day nangu. Euh, jaam day ñu gis ne déggoon naa ci yenn mbër yi nga xam te ne jotoon ngeen engagé ku ci mel ni Sokh génn na wax par rapport xam naa ñeneen la demee ci ñoom Gamou Gueye ci ñoom Mamor mbër yi nga xamante ni jotoon nañoo jënd ay billets euh, doon waaj euh, ñooñu bu bu bu làmb ji ñëwaatee naka ngay defaatee ak ñoom. non man kenn jotu jënd bee. kenn jotu jënd xam nga kenn jotu jënd si làmb bi ñu ànd damay waaj ñoom tam ñu waaj ñu ànd mais moom moom wax dëgg yàlla kenn joxuma xaalis bi béyam waaw joxuma xaalis bi béy euh, ama maam lu mu si ñoom noonu la méttee si man tey amaana xaalis boobu su ma ko jotoon business bis xam nga du du naax si yeneen business waaw comme nu ma la wax ak day nangu amaan ñoom tamit ay jàmbaax lan amaan dama leen di maasu ñaan yàlla xam naa peut-être yàggatul. ay jàmbaar lañ da nga leen masawu euh, boobaak léegi ñu déggoon ne làmb ji dañ koy def huis clos est-ce que yow pare nga pour tëgg ko huis clos wala da ngay xaar euh, mbas mi dem nga doo ko saison bi tijjuwaat nga doo ko tëgg combat yi. waaw si kaw huis si kaw moom état bi waxoon su état bi xam nga état bi moom su ko nee loolu naa pour tëgg man. lan la état bi waxoon. ñoom ñu ko dañuy jàppale. xam nga lu promoteur ñu def seen. seen euh, seen bilan kii financement jox kii euh, kii ñu waa CG xam nga si kaw si état bi suñu état jàppale moom par exemple teg wi kilo mais su ko état defu moom xalaatu ma ko sax du ko def. waaw xalaatuloo dégg naa ci yenn promoteur yoo xamante ne nañ bu état bi nangu woon suba suba ñu tàmbali ñoom huit kilos bi. waaw moom laa la wax état bi su ko man suba ma ma suba ma sama laamu. léegi en tant que Baba Diaw lan lay tuddee jàppale. non état bi dana ñoom dañuy xool tey exemple soo defoon dix mille ñu xool dix mille bi lan la la siy tegal man loolu ma expliqué comment man loolu su ma koy daaw defee suba ma tëgg sama komba ndax man daanaka sama sama combat def naa lépp man seize heures laay xaar ñu woo ñu ma ñëw tëgg kon ñu bëgg a tëgg man man si boppam sax maa ngi nga waan nga maa ngi parasi kon fi mu toll nii daal bu see bu bu état bi génnee financement yi nga xamante ne ni jotoon na ko waxtaan ak yéen bu ko génnee wee ngeen tëgg su ko génnewu dangay ngay banque sa yoxo daal ba keroog euh, ngay gis lu daal sa xel. non xalaatuma ko sax waay xalaatuma ko état bi daal comme ni mu la waxee su génnee suba suba pare pour tëgg ànd sama staff yëpp. xam nga ñoom ñëpp pare na ñoom Malick ñoom Alpha ñoom Aba ñoom Amdi gars yi mais si kaw état bi jàppale mais lu ti xew moom avant kenn du tëgg maay tëgg. maa ngi ko tëgg ba noppi. maa ngi ko tëgg. Euh, yow ak mbër yi seen bi bi affaire bi amee léegi ku ne xam ne ne engagé mbër dafa metti ndax ñi nga xamante ni fi mu toll nii ñoo ngi leen di ñoo ngi leen di woo sax di waxtaan ak ñoom pour ñoom pour combat fi mu a jël avance sa diggante woo ak ñoom communication bi yaa ngi déggante ak ñoom wala. si maa déggante gàmmu xam ak sook waaw saa saa maman dañuy dañuy di déggante xam pour daaw laa fa laa déggagul quoi. xam nga waaw mais maa ngi déggante ak ñoom mais puis si kaw ñoom mbëri tamit maam dañ ñoom mais ñoom dañ comprendre xam lii man tegu leen ko état bi tegul leen ko waa teguñu ko nattul bu ñëw suñ kaw la yow mu jël sa alal dugal ko comment comme man maa ngi gën suma alal kon ñoom heureusement sax buñ nekk ay góor yàlla nangu ndogal wax dëgg yàlla xamoon ñoom ñëpp ay boom baax lan làmb toll fi làmb toll euh, même bu dul yow d'accord nga d'accord nga euh, huis clos ci làmb fi làmb toll même bu fekkoon état bi euh, financé na leen d'accord nga huis ci làmb parce que ñu ci bàyyi ñu ma seeti nee nañ huis clos nekkul loo xamante nii dafay jëmal làmb kanam. non non maam Nday soo ko déggee maam ñàkk pexe la. kabana huis clos soo ko mooy ñàkk pexe la tey def ko huis clos saison bu jeex benn saison bi ñëw ñu ñaan yàlla match bi dem ñu kon na suñ xama waaw ah, mais ñàkk pexe la mais day au moins tamit huit club gars yi ñu koy dégg mais huit club bi day am ay tëggat sabax xam nga ay waykat peut-être day am ay kàkk personnes yu dugg mais huit moom sës. waaw. nañ ko baaru yaa fi sësay taxafal. nañ ko def rek mais ñaan ñaan avant déwén xam nga mas bi dem gars yi ko nuwaat seen kii seen yëngu-yëngu. mais dafa mel ni am na loo xamante ni état bi joloon na ko comp séddaleel ko yéen defe naa ne euh, promoteur yi nga xamante ni ku ci nekk jotoon nga joxe avance wala waajoon nga tëgg euh, jot nañ leen séddale ba ku ci nekk am 2 millions yow ci 2 millions yooyu ci nga bokk. waaw état bi CNG wool nañ ma jox na ma 2 millions. maam geste noble la. xam nga waaw geste boobu geste noble la. deux millions yooyu jël def ko sa gafaka la wala da nga koy partagé yow mbër yi nga xamante ne jotoon nga leen engagé. deux millions ma dugal sama poos la. jox mais est ce que nekkul dañ leen ko dañ leen koo jox pour pour pour tëj seen gémmiñ wala est ce que nekkul dañ leen koo jox pour euh, ngeen toog bañ a wax parce que boobaa ak léegi mbër rek la ñuy dégg ñooy génne di kaas yéen ba léegi kenn déggu leen. non man su ma gémmiñ kenn mënu ko teg ndax suma ma live maa ko ñëwal sama bopp maa suma àll itam dugal ko si làmb ji kon tëj sama gémmiñ moom du yomb la période da donc da dafa des euh, geste noble état bi mu def geste noble la comment jël as tuuti neen am leen loolu geste noble la mais kese tëj gémmiñ maa ngi dégg léegi ne geste noble la jox na leen kenn ku nekk mais dafa gis dama gis ne bi ñu leen séddalee yéen vingt sept millions yi euh, après dégg naa ci ñenn ñoo xamante ni génn nañ euh, ñi nga xamante ne ñoo jiite écurie yi ku ci mel ni dama koy lim sax nag ku ci mel ni ay zos ah ñun waa équipe Bathie Seras ñoom daal def leen seen délégation comme que yéen encaissé ngeen rek ñoom dañoo war a encaissé ba ci yenn mbëru ndaw yi sax nee na yéen leen jox ñoom lañ ko woon séddale ñoom ñi nga xam te ay mbër lañ te ci làmb dong lañ yaakaar noo gisee loolu bi ñu leen jox rek après coow li am ku nekk génn eta bi daf ñoo euh, jox état daf euh, jàppale noo gisee loolu xaalis daal moom fu mu dugg fu ne andi fa andi fa andi fa boole waaw mais coow woo fa am imagine permetteur bu jël alalam yaa may dégg ko fenn woon ko jot jotu ko mais tey fexe fa yoon maam demoon banque leb fa xaalis mais si boobaa coono coono du ko dab. Hmm? kon état bi su jëlee deux millions jox ko pour man ñoom dañu ñoom dañu war ñaanal promoteur yi gis xaalis soo ko bëggee am eh, eh, eh, liggéeyu ko gis nga làmb ah, donc donc nekkuñu benn ñun bëgg am duñ am te làmb ku si nekk se intérêt bopp la jiital. donc suñu def loolu yàlla xam na ni làmb du avancé nañ ànd doon benn état bi mu def promoteur yi billaay wallaay da leen woo sax gën a jàppale tey man su ma xaalis ma dugal su ma su ma ko kii woon moo naa ko dugal si ay business ñoom est ce que ñoom dugal nañ seen xaalis nee na li leen jotoon a jox séddale nañ ko jox nañ ko sëriñ yi lii jot nañ koo jox ñi nga xam te ñoo leen di jàppale lii jox nañ ko coach yi ñoom daal wax nañ nee xaalis ba tas na bu yàgg waaw ñoom pour man si benn côté la ñu war a kaas mais pas si côté comme ni ñu jox promoteur yi. maam fu man woon mu ñëw mën nañu wax naan état bi war nañu mun jàppale. ok équipe bu nekk état bi xool mu fay dugal. waaw loolu mën na nekk. mais su boobaa es ce que coow li du parce que tey jii boo jëloon benn benn benn benn deux millions jox benn euh, benn Baba Diaw mu jiite benn écurie est-ce que séddale bi dina jaay yoon. coow la yam. xanaa yéen lañ séddale 27 millions coow li tàmbali. promoteur yi ne woo dañoo am ñii ne ñoo tëgg coow li am est ce que boo ko joxee ay mbër yoo xam te ne écrit di nga dugg benn écrit fekk fa 300 mbër est ce que da nga leen mënoon séddale ba ku ne jot. coow mooy am ñoom ngay lu maam day comme man su ma yéene man bëgg naa avant may di sëgg kii euh, sama combat mbër bu nekk ma xool lu ma la jox man sama yéene. jàppale waatee la ko. baax Seexu Xadim ndax ñun ay. ay doomu gox lan tey am loo xam ne tey suñu état jàppalan xalaatuñu sax jël lépp du du du ko dugal suñu poos xalaatuñu loolu waxuma dinañ man wax ma ay soq gàmmu gay rek premier combat ba dixième combat ñoom ñëpp laay boole jox sew suñu bopp ama mais dañu yéenante jàmm tey Ouzin su su ko état bi mu bokk si sa maam si làmb dañ ko war yéen a jàmm ñaan yàlla lool jig ko mais woo ñu tax ne Ouzin état boo ko jox loolu day yàq làmb. looy wax looy wax ministre bi nga xamante ni moo jiite làmb muy Matar Ba parce que fan yi yëpp gis nañ ah, mbër yi génn nañ wax. Euh, ñenn ñu ci bay acteurs yi yoo xam te ne dañoo bokk ci làmb ku ci nekk génn wax ñu jékki-jékki dégg ku fa jékki-jékki dégg ay huis jékki-jékki dégg suñu dara ndax xam naa ne huis clos ba ñu wax sax gëmatuma mu mën a am lan ngay wax ki nga xam te ne mooy ministre Matar Ba. waaw ministre moom xam nga da ngay ñaanal jàmm ñaanal ko fan bu gudd ñaan a ko yàlla kàttan ko xam nga ah, peut-être jàmbaar la waaw mais dañuy ñaan mu gën waaw en tout mu war mu gën ko yokk quoi xam nga comme lu mu la waxoon rek man dama gëm ni tey soo jiite ay nit waaw ah, lu munta nekk taxaw ne munu nekk su boobaa kenn bañ ci def xelam mais su mu la nekk taxaw ne mun na nekk waaw ah, man loolu laa gëm ko tey loolu tamit am ke euh, question bu mu koy jox pour moom waaw ah, lépp lu muy def ak su su maam làmb bu mu xool lu neex nit mu koy mu koy wax mu koy wax xam nga mu koy def maam lay xool moom lu mun def mooy mën naa ko def lu mënul def mooy mënu ko def xam nga tey exemple comme jamono yooyu la su ne tey làmb mënugul ibbi su boobaa man dinaa concentré sama liggéey ak keneen ak keneen mais tey soo soo dalalee xelu gaay gaa yëpp dañuy jël seen xelaat def ko si làmb ji. Badou da ngay dem di doxi combat boobaag léegi euh, bi mbas mi ñëwee ñaar saison bi dina tijjee tijji huis clos dina amoon am yaa ngi fi doon dox ay combat wala da doon concentré wu ci combat nga xamante ni jotoon nga koo taxawal. ah benn combat laa jot a taxawal mais avant boobu nag dama commencé douter quoi. xam nga bàyyi ba match bi jotoon taxawal. caatu yaax ak kii kii. bu ñu bu ñu bu ñu weesoo loolu fan yi dañoo gis benn mbër boo xam ne dafa feebar mu Boy Malika euh, bi problème bi amee ba léegi euh, fii ak deux mois lay def at mi ngi ko jamee bal bi ak léegi euh, boobaa léegi nag moo ngi tàllal loxoom ñi nga xamante ni mën nañ koo jàppale koo xamante ni bokk na ci làmb def naa yëg nga ni problème bi demee waaw léegi boo amoon kàddu yoo xamante ni danga ko ciy wax wala bon volonté yi pour ñu jàppale ko lan lay doon. waaw avant toogaay dama maam lu jiitu ñun si boppam. axul làmb war nañ ko jàppale. war nañ ko jàppale euh, ministre tamit war na si dugal loxoom ndax ndaw la toll si digg àddunam am lu dal tey su nekkoon sagoom moom du génn sa baay wax moom moo koy fajal boppam mais comme loxoom jot si digg ginnaawam tey man man so suñu boppam avant semaine bu jeex lu mun daa moon naa xool nu ma ko joxee man mais damay ñaan état bi jàppale ko surtout man tamit ministre bi da si dugal loxoom waaw. waaw nañ ko jàppale xala la. dégg ngeen Baba Diaw wax nee na bëgg na balaa semaine bi di jeex lépp loo xamante ni mën na ko ci wala boog yéene na ko dina fexe ba moom mu jot ci moom booy malik di ko ñaanal wér keneen koo xamante ni mel nga ni euh, Baba Diaw wala mën nga euh, jàpp ci combat bi noo ci mën a jàppee rek baax na ndax jàppal ma jàpp moom day tax affaire yi gën a dëgër soo amoon kàddu yu mujj loo ñuy wax Baba. waaw sant yàlla bu baax sant tamit suma ay famille ndax tamit dañ ma jàppale ba ma egg si fii sant suma ay copains xam mel ñoom Aba ñoom Amdi ñoom Papa Ndaw ñoom Malick xam ñoom Alpha ñoom Youssou Thiam xam nga ñoom Isaaxa ñoom wax dëgg yàlla tey su ma ba taxaw ginaaw yàlla ñoom si lan waaw dama leen sonal si kolo bi nekk su may liggéey sax day ñëw nangu liggéey si man kon ne ko te su ma bay fay mbëx ay millions ginnaaw yàlla ñii la man ñii laa am aw ma keneen xaw ma aw ma beneen euh, keneen ko am doole quoi ma sama doole ñii la kon dama leen sant bu baax sant mbir naa bu ma dëkk nag xam nga dina ñaan xam tamit maa lay ñaanal jàmm ndax gis naa sa sa liggéey quoi. waaw boo si kenn jëlee àdduna lii la xam nga fooy teg sa tànk ndax làmb lép mafia la waaw nañ la mafia boobu yàlla boos boos bokk. ok. gis ngeen ni lay demee tey Baba Diaw lañ seet si woon waxtaan ak moom ci làmb gannaaw làmb dafa tëj waaye comme ni ma koy waxee chaque jour rek. Wassare làmb làmb la fi nekkal ñi nga xamante ni ñoo abonné ci ñun di wut information ñëw ñoo toog bañ leen a andi daal moo tax tey ñëwoon seet si Baba jaw di leen jox dig daje ak beneen yoon ci Wassare làmb ci yeneen invité di remercier ak mbenn